ansebillah bisimilah inna wali yàlla asalaamaaleykum axlulam seen doom day organe borom yéene kaay moo ñëw indi la demee Modou Lo Balla Gaye 2 ñoom ñaar si nekk am na di Lac moo boole ko lépp lépp lépp lépp titre noonu la demee troisième pas ñu dem fenêtre yi comme suñu lamb nu mu defee saa su ne ñun ñoom CNG boobee nag ñibbi de ñibbi seen kër fële si arène nationale nag gannaaw nag fële si stade Léopold Senghor lañ seen seen a amaat na 6 mois lañ ko ajoon te 6 mois jeex na tak gisuñu fa benn benn benn benn mbër quatrième pas ñu dem CNG bu bees ñëw na de teg nañ leen seen place maa la wax lii waaye nag mënaguñoo def lii di mooy seen liggéey de looloo waral nag ña ngay njort est que le 19 novembre duñ njëkk a def li nga xamante ne moo di seen réunion ndax kat moom président bi fi jógee ak war a jox lenge nag

di ancien deuxième vice président fële ci CNG nee na Birame Sène nag li ñu jox nii war na ko mun doxal de war na ko mun a doxal bu baax a baax a baax a baax waaye nag li gën a am solo ba am solo mooy moom day déglu moom day déglu moom day déglu ñi nga xam ne ñooñu lay jiite looloo tax nag pour mission am nag pour mu mun ko doxal lu mën a nekk sixième pas ñu dem Baboy le mbërëdu de Pikine gannaaw ba ñuy njort naan quarante cinq ans yi est yokk ci kaw moom Baboy mu mel ne na entraîné de mu nag suñu nag ba ñuy njort naan est ce que duñu yokkaat at lu méttee méttee méttee fële Club de pour xaar nag bis yokkaat at yi waat sarax ci biir li nga xam di làmb ji septième ñu dem Modou Lo le roc des Parcelles Assainies le roi des arènes Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye moo ñoom ñaari mbër nag suñu nag moo ñëw nag indi leen de li nga xam ne seen biir xel nag lañ bañ fa nekk waaw bi njëkk moom le roi de lu mu teewaa ko ci loxoom nag lu mu gën a yàgg ci gën koo arrangé lu mu gën a yàgg ci moom moom Modou Lo loolu la gën a bëgg waaye nag ka ca topp di kan moom BG2 ñu ne li bëgg nag du lenn na mooy moom Balla Gaye 2 moomee loolu la bëgg nag looloo waral suñu lamb di xam ne ñaari ennemi yooyu nag kenn ku si nekk ne li nekk sa xel nag mooy couronne roi des arènes de kii moo ko yor ne du jugee si loxoom kese des nag bëgg mu ñëwaat ci loxoom nag mu téewaat ko looloo war nag suñu lamb ne ah du yomb de li yombul woon te def ko moom Eumeu Sène du dara lu dul fekk ku toog huit ans daanuwul tegale dix victoire nga ñëw jox lii di première def de moom la sot sàmm xam def de maa la wax lii la foot de tay si daan kii la dëgër de ba pare nag fas yéene ko joxaat revanche am ki fas yéene nag jëflante ay adversaire am du kenn ku dul kan moom les de gannaaw nag ba mu toog génnee ci ruqam mu ngi laaj ay mbër laaj ama neex Malick Niang Yékini Junior ku ci Ndakaaru moom Gris Bordeaux ma nga noonu de ci buntu écurie bi di bàkku nee na maay borom Ndakaaru fukki penc yeeg ñaar yëpp nañ ñëw mu boot leen sama ginnaaw boole ko écurie Fass gin cag gid cag gid gid gid gid gid gid papa pëng yéen kaay tey maa ngi may wisi moomo fidèle internaute de Kewel Info jëlal frère yaay borom seen doom day organe moo fi jaaroon dem naa wasalaam